Madame Innocence Tap Ndiaye présidente du Haut Conseil du dialogue social waa Haut Conseil du dialogue social dañoo ñëw tey délégation bu takku boo xam ne dañoo jël kuréel bu nekk bi nga xam ne moo composé institution bi ñu ñëw fii jaale xalif bi ak également famille bi nga xam ne xalif bi wàññi wàññeekoo ci fan yu néew yi ñu ñëw nag wax aussi li nga xam ne Euh, mooy situation réew mi parce que loolu mënuñu ko bañ a wax boo ñëwee si bërëb bi mel nii dangay sàkku ñaan donc sàkku nañ ñaan xalif bi jàmm ci Sénégal mu dimbale ñu ba ñu am xel ak gis-gis ak xolu euh, jàmm ji dellu si si biir réew mi ndax ñëpp gis nañu jafe-jafe yi ni ñu dund xale yi ñu bëri jàngiwuñu tey ndax nañu yaakaar day am ay manifestation am na ñoo xam ne ñàkk nañ si seen bakken ñu koy naxarlu waaye di jaale waat di yeesal suñu njaal ci famille yi nga xam ne am na ay nit yu fa gaañu mbir mi metti na ku ko wax ku ko waxul metti na ñun nag ñu am mission boo xam ne président def ñu ko sas ci décret bi nga xam ne moo def institution bi waaye duñu xaar ba mun nañu jóg leen ñu jóg ñun boobu ba tey ñi ngi gëstu di waxtaan suñu biir pour indi ay solution comme woote na dialogue national nag dialogue national du exclusivement dialogue politique dialogue social dafa nekk pàcc boo xam ne dafa bokk si dialogue national dialogue national bu 2019 ñun woon nañu ci ay commission ñu def suñu contribution donc bii tamit ñi ngi xalaat naka la ñuy defee suñu contribution ci dialogue bi nga xam ne moom la président de la république woote. di lancer un appel ñi nga xam ne wuyu ñu dem wuyu ji fekkee day tax sa responsabilité nga engagé ko devant le peuple sénégalais bañ a fekkee moom ñaanuñu ko yàlla waaye fekkee daal moo ñu gën a loon boo toogee sax noppi waxuloo bokk nga si dialogue bi mais boo si bokkul nga toog waxuloo. sénégalais yi moom duñu xam fi nga jëm ak li nga bëgg te ñun loolu la ñu bëgg dañu bëgg ñëpp toog toog waxtaan jël réew mi tegaat ko si ay raay ñu dérouler agenda boobu loolu mooy yóbbu réew mi ci kanam